di ngeen comprendre ne ñoom dafa am ci benn campagne bu ñu nekk benn campagne de lavage de cerveau mais je vais vous dire que ce cas Sonko est un puzzle comprendre leen li ma wax de et la pièce d'or reste dans la main de Sonko et il ne faut pas douter il ne faut pas il ne faut douter sur Sonko jeunes yi lay waxal nag yéen ñi nga xam ne da ngeen gëm il ne faut pas douter rester constant combat dafa am ay jaar-jaar dina am ay jafe-jafe dina am ay tolof-tolof doomu aadama bu ko yàlla bindee lépp yomb baaxul c'est pas bon voilà donc il faut ñu am ay tolof-tolof ñoom ci seen bopp ñooy wax ñoom ci seen bopp ñooy ñëwaat fenloo seen bopp xam nga génnee nañu ay photo ñoom ñoo koy génnee ñoom ñooy ñëwaat suba génnewaat beneen foto ne kii la bu ginnaaw subaa ñu génnewaat beneen foto lan mooy dëgg ñun xam nañ ne gis nañu aji te aji wax dëgg yàlla mi ngi mel ni ku oto fiir aji de wax dëgg yàlla man ah je dis je parle de moi aji de bu ma ko joxoon jox ma waa këram yëpp man duma ko jege man donc je vais vous dire une chose il ne faut pas douter les jeunes bu leen jooy rester constant donc gouvernement Sénégal li ñuy investir ci ñaawteef yëpp bokk koo daanee Sonko buñ ko investiroon ci lu baax rek Sénégal avance mais ñoom plan yu baax yi duñ leen effectuer ñoom ci ay plan yu bon ci loolu rek lañuy ñuy dox bu leen leen may loolu bu leen bu leen neexee man maa leen ko ñaan bu leen lire ay journaux bu leen déglu ay tele boo demee ba xam ne télé bii du wax lu lay njariñ loo koy dégloo ça te rend malade xam nga man ma seetaan benn télé je bu vous dire te loolu wax naa leen ko bu yàgg gis ngeen set cet avocat perroquet la avocat perroquet bii ngeen di déglu sama diggante ak yàlla ak sama taraay bàmmeel je vous le jure billahi wallahi dama ko xam nee naa leen famille la presque ci man kooku mbindaanu këram yi sax dañ koy daw gis nga mbindaa dina ci biir këram sax bu ñu gestoo ni gisuñu seen patron dañuy ragal a dem ci moom day nekk foofu ci biir kër gi naan xale yi bés ma bu ñu leen bësee mu jàpp seen loxo bëgg leen tëddee dafa feebar moom dafa am feebaru cuccu maanaam avocat boobu ngeen di dégg muy wax la perroquet la dafa am feebaru taat imaginel doomu aadama bu dem bay sëy ak jabaru cousin am maladie raw na lool jabaru cousin say cousin bu deewul il est en vie yaa ngi dund sa cousin mi ngi dund sa cousin jabaram ngay sëyal kooku kan la mën a jox leçon de morale kooku kan la mën a wax ci affaire de viol moom viol à flagrant délit France kayit yaa ngi dund doomu aadama yëpp teg ko ba doomu jàmbur bi comme amuñu dara luñ ko rapproché muy nit ku simple nit koo xam ne ndeysaan sonko mën naa lekk ak yow ci benn ndab te xamula sonko boo tegee ndab ak dof sonko bu fekkee dof dof laa la wax de buy xeeñ sànni ay sagaram ci biir mbedd mu teg ndab di lekk sonko mën naa jonkoon lekk ak moom il est simple comme ça nit ñu mel noonu nag doomu aadama yi buñ leen xamul dina am lu bari lu leen mën a dal parce que dañoo dañoo simple ba ëpp dañoo ubbeeku ba ëpp te ndeysaan xamul parce qu'il est toujours jeune pour moom euh, adduna bi dafa dépassé yenn yi maanaam pour moom yaakaarul ne doomu aadama dina wàccee boppam à ce niveau moom mi ngi dem di joxe dara te xamul ne deret boobu muy joxe état la koy jox parce que état mën nañ cee def dara Sonko ci dëkk bi la dëkk mi ngi dugg ci restaurant yu ndaw ndawaan yi mi ngi dem maasewu mi ngi def lii mi ngi def lale donc pour moom il est il est une personne ordinaire mais déedéet parce que du pour dara Ablaye Wade bu élection jeexaat mu gàddu ay dëbësam dem Paris xaar ba beneen élection jotaat mu ñëw parce que xam na ne bu toogoon Sénégal xaar beneen élection dinañ ko ab Ablaye Wade xamoon na loolu moo tax ngeen daan gis du toog ci Sénégal mais loolu c'est un débat pour un autre jour on va son ko c'est un débat pour un autre jour Sonko nag comme ni ma leen ko waxee il faut savoir qu'il est très intelligent sëñ bi ñiñ ko seqal c'est des bandits kenn ku nekk ci ñoom mën ngaa bind libre ci moom El Hadj xamal naa ko fukki jigéen yoo xam ne ku ne mën naa koo lim ci moom dix femmes yoo xam ne ñoom ñëpp lu ñaaw la ñu wax ci moom nee naa la ay mbindaanu këru El Hadj jot naa ndaw soo xam ne nee na ma dafa mësal liggéeyal El Hadj ci këram mu ne ma mais yéen dafa mel ni ki ngeen di wax sax xamu leen ko mu ne da même bu ñu daan romb. ak suñu jupe wala sër wala dara day jàpp sa sër bi ni xëcc ko sa sër bi jóg sa sa sa awra gi génn ci bu jabaram newul ci biir kër gi il est malade comme ça c'est ce genre de malade mental que les Sénégalais un micro qui s'assoit sur les télés et dire que lui il représente quelqu'un jabaram jabaru El Hadj boo ko woowoon nga laaj ko kan mooy El Hadj Diouf da ngay ragal nee naa la El Hadj Diouf dem na ba comme mënatul amal boppam lu normal dafa dem jabaru Souleymane Ndéné Ndiaye cousin am la dem leen xool Jules Ndéné ak lu mu bokk ak El jabaru Souleymane Ndéné Ndiaye El Hadj Diouf takk ko toog ak moom ci biir këram sans problème ça le man loolu man lay wax de loolu man bu ma xalaatee jigéen rek ne sekk na ko ak beneen góor bëggatuma sekk ak yow dara en plus forte raison aussi que ma xalaat ne kii sama cousin la ko sekkaloon ay Matar Silif Matar la kayagulaar la kayugulaar laa ko war a tuddee wala kayagulaar ay Matar Silif ñooy toog ñu ne dañ ñuy jox ay leçon de morale ci Ousmane Sonko duma wax ñaawteef nag waaye Matar Silib laaj leen jabaram mu njëkk bi lu tax mu bàyyi ko ñu ne ko ñun dañ ko joindre eh, lan moo tax nga bàyyi Matar Silib mu ne mbir mi ak jumbax bee tolloo te man manumaa dëkk ak góor boo xam ne wax dëgg yàlla manumaa satisfaire kooku warte génn di kas góor mais Sénégal dafa neex yéen Ousmane Sonko est-ce que xam ngeen lan la ñu yàlla may ci Ousmane Sonko on a un patrimoine dégguloo de kalpe bu am or lañu yor ci Ousmane Sonko kalpe ak jamaa la yor laaj leen xale yi jigéen yi nekk ci laaj bi ne leen ndax neex na nga sekk ak xale bu góor boo xam ne mbir mi comme jumbax la toll laaj leen leen ko bàyyi leen ñu tontu la donc góor yu mel noonu toujours da leen di gis dañuy xas yeneen góor waaw tëdd naag jigéen bi waaw ma def na jigéen bii la le et ou dame la dëmm bi nekk Californie dajjal musumaa gis góoru sénégalais bu ko sakku jamais xam nga jigéen boo demee ba sa kaw mel ni chirik euh, euh, euh, xam ngeen chirik mooy image de dessin animé boobu chirik mooy ci kaw gi rëy taat yi def mbucc tànk yi wàcc kooku mu ne dee damay dem xase nit mais vous voyez le physique de Ousmane Sonko Ousmane Sonko lan la ko nit mën a xasee jantal na am na xam-xam liggéeykat la du fen du sàcc d'accord peut-être ay tolof tolof yu ndaw ñëw na fan yi nous on va pas douter de toi boo jékki-jékkee gis ndeysaan ay mécontent wu idi yi di bind waa jële moom dafa mel ni l'association des géwél de Thiès ay ibu Ngom ay a Abdou Cissé ay ñeneen ak ñeneen ñoom li leen naqari Abdou Cissé tuddul Abdou Cissé asos benn association géwél la ñi yor seen plume ñi yor seen micro di fet waaw te ñoo tey waaw nangam ñoo tey waaw jàpp nañ sonko waaw sonko def na sonko jàpp na lii sonko tëj na sonko nangam na sonko lii na mais soyez quand même intelligent dem leen ngeen tàppe ci réseaux sociaux yi turu Ousmane Sonko nga jël photoom nga dugal ko tu vas voir deux mille femmes ñaari junniy jigéen dans di secondes dañoo koy aimé loolu da message la noppalu leen ci doomu xaraam yii di wax ci tele bi walla con yii di waxal senegal ñii gëmuñu Sénégal de doon believe in gëmuñu dara bu gëmuñu dara de doon believe in nothing lu lu xew rek ñoom lañuy jël daw ak moom imaginel ñu ne kan mooy wax ñu ne Yérim Seck Yérim Seck Yérim Seck bi ko bindee livre mu toog di ko laaj question question yi mu ko doon laaj mooy lii dégg naa salafis nga ah dégg naa yow salafis nga nangam nangam dégg naa yow lii nga dégg naa nangam nga dégg naa nangam nga di ko mandargal di wax ay ñaawteef rek ci moom kooku ngeen yaakaar ne dina dégg affaire Sonko di ci bindi lu baax euh, Ahmed Khalifa Niass euh, nee na Sonko li mu def euh, l'islam nangu ko d'accord naa ak yow Ahmed Khalifa Niass waaye yow aussi bëgg nañu nga wax ñu ndax yow li ngay def islaam nangu na ko parce que yow xam nañ la dangaa njaaloo ba ñu lakk sa ngóora gi dangaa njaaloo tukki bitim réew ba ñu jàpp la lakkal la say bagaas yow dangaa njaaloo ba ñu lakk la bàyyi la mandarga ci say bagaas yow jigéenu Sénégal yëpp xam nañ la je au moins vingt filles yoo xam ne Ahmed Khalifa Niass day teg sante ñoom pas bu tol noonu il a soixante combien d'ans il a quatre-vingts ans mais dégg naa sax day SMS ante ak ay xale yu jigéen ba léegi je connais beaucoup de filles yoo xam ne day SMS ante ak ñoom donc arrêtez de vous foutre de gens bu leen fontoo nit ñi ñun xam nañu leen xam nga ñun li neex ci Sénégal mooy Sénégal c'est un petit quartier Sénégal du réew quartier la on se connaît tous ku ne xam nañ sa tooxa doon ma ne la Youssou genre Youssou Ndour gi man bu ma rusuloon am na yoo xam ne bu ma ko waxee tey ndeysaan sama kër gi day tukki Youssou Ndour la moitié de sa famille ay doomu biiral lañu maanaam genn wàllu doom yi mu jur dafa biiral ci àll ba genn wàllu famille Youssou Ndour dafa biiral ci àll ba laaj leen ko ko wala ngeen dem laaj Buuba Ndour làmmiñ bi ni ñu rëyee noonu nu toog TFM laaj ko ko ne ko ñun de dafa am koo xam ne dañu wax ak moom nee na Youssou Ndour ndeke biiral rek lay def ci àll bi mais il faut arrêter. ñun am nañu dossiers yi de on les connaît le conseiller spécial. Abdoul Aziz mbay mu makki Sall Abdoul Aziz Mbaye mu makki Sall Abdoul Aziz Mbaye mu Macky Sall son conseiller spécial ne leen ko Tunkara nee na ndekete yow am nga benn xale dakaar du mbëgguma nag yàq xale bi parce que bu ma joxee tur bi dina dee ba nga utal ko ba nga jëndal ko restaurant Almadi dinaa ñëw ci yooyu yëpp Ismaïla Madior tamit ngeen laaj ko ndax ci ginnaaw la koy accepté wala ci kanam laaj leen ko Ismaïla Madior ministre xam nga ne woon naa fi listu góor jigéen dinaa ko indiwaat je vais ramener ma liste parce que sama xol neexul fan yi bi ma fi indee liste góor jigéen ñëpp di jëfru Ismaïla Madior Fall laaj leen ko ne leen ko Tunkara nee na tu le prends devant ou derrière waxuma dara de est-ce que nee naa fi góor jigéen wala nee naa góor wala nee naa jigéen waxuma fi dara dama ne nee leen ko rek Tunkara de dugal na ay doute ci suñu bopp Ismaïla Madior nee na tu prends devant ou derrière laaj leen ko il faut le demander xam nga il faut arrêter les ministres du Sénégal quatre-vingt-dix pour cent sont des PD les avocats 90 pour cent sont des violeurs mais non astafurlah astafurlah pas 90 pas 90 les avocats non l'avocat qu'on connaît le <laughs> le le vrai avocat que nous connaissons ki ñu xam ñun ñëpp xam nañ ko kooku mooy violeurs bi donc avocat yi jéggal leen ma maa ngi jéggalu kàddu yi dafa yaatu parce que avocat yi moom vraiment euh, vraiment xam nañu leen avocats yi xam nañu leen ñuy ay nit ñu baax mais xam nañu kii génn nii di mbele mbele ci journaux yi mais Sénégal la neex Macky Sall moom dafa jël benn bande de salopards rek mu jël leen tas leen ci tele yi ku nekk yor làmmiñam di wax. ñoo xam ne dans un monde normal ils ne peuvent pas s'adresser aux êtres humains c'est extraordinaire man looloo ma jaaxal li ma gën a jaaxal mooy mooy des avocats yoo xam ne vraiment waruñu wax ils ne wax pas parler ñuy manipuler xelu nit ñi ñuy manipuler ñoom seen liggéey mooy di dem rek di duul suba ba ngoon jot parce que c'est un avocat aussi en fait attention wax mënul leneen waaye mën na wax El Hadj Diouf mën na wax ba ne la cuccoom bi boo ko jàppee ci sa loxo tap ne ko El Hadj kii yow la mu ne la déedéet moom moom man sama bos bàyyi naa ko kër ga El Hadj Diouf capable na lool yéen kooku ngeen di déglu bu yaramam tàngee bu ko kenn dégluwul day daw tëb ci kaw oto yaa yaa def yooyu yooyu lay def ça c'est El Hadj kooku ngeen di teg seeni ay tele Sénégal même les journalistes Sénégal vous êtes nuls ah vous êtes nuls journalistes yi nag man heureusement que lii moo tax ñu bari ñu may laaj ñu ne ma mais Ousmane lu tax yow duñ la gis ci ay tele Sénégal lu bari ma ne parce que journalistes yi dañoo nul dinañ ma woo nag maay bañ. man maay bañ moi je ne veux pas euh, gérer avec des nullards Bijou Ngoné moom sama xarit la moom nit ku baax la vraiment euh, et on na beaucoup de euh, rapport maanaam dina la woo ma koy woo xam nga dinañu déggante muy nit ku baax moo tax kooku ñu koy may suñu cinq minutes voilà ak yeneen journalistes yu ma xam yu baax am na ñeneen ñu baax mais ñu ci bari ñun dañuy woo ñun ñoo buggul sekk ak ñoom dañ nuy woo diw dama la bëgg a nangam nangam ma ne leen noonu noo xam nga dañoo xaw a jàpp fan yi liggéey bi dafa bari nangam nangam ñu daw leen. parce que journaliste journalisme éthique la xool leen li fi dal ndaw si temps yi wal fajir wax dëgg ba pare patron bi ñëw mu ne ko noo da ngay balu ak da ngay ñëw jéggalu Youssou Ndour pourquoi mais ana éthique ana éthique éthique anamu. tey ay genre Pape Alé Niang ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëw ci dëkk bi di wax dëgg ñooñu yëpp ñu génnee leen ci télé yi parce que lan dëgg bi ñuy wax dafa metti il tape sur la table léegi journaliste yi amul éthique ñooñu yëpp ñu bàyyi leen ñuy wax du n'importe quoi ça c'est extraordinaire sénégalais yi jàppe leen seen bopp ngeen xalaat li ma leen di wax la encore une fois et je vais rester sur cette trajectoire il ne faut jamais douter il ne faut jamais douter bu ñu douter ci Ousmane Sonko nañ ko bàyyi moom mu génn mu waxal boppam am na làmmiñ dina wax puzzle la mbir mi puzzle la de et cette dernière pièce est dans sa mais comme ñoom guerre foowum taat la ñu bëgg a def guerre foowum taat dinañu ñëw commencé diviser góor jigéen yi di ngeen gis ñu commencé jëfru may leen maag ñoom rek temps di ngeen commencé gis ay nit yu bari lakkatu dem vacances ces ministres du Sénégal la ils von commencer à aller en vacances parce que je vais vous dire une chose ah quatre-vingt pour cent de votre gouvernement c'est des PD déglu leen ma de quatre-vingt pour cent wu gouvernement wu Macky Sall ay góor jigéen lañu mais ma ne la da ngay ragal you you get scared bu ñu la ko waxee boo xoolee nombre bi bu buñ la joxee list bi boo ko liiree da ngay tiit boo xoolee list bi da ngay tiit mais ñun dañu dem ba à un moment donné ñu ne ah xam nga lu ñuy def nañu concentré wu ci waxtaanu Sénégal rek mais comme ñoom dañoo bëgg a salté amul problème boo leen bëggee salte dinañ leen woon salte te xam nga lan la ñu bëggul li ñu li gën a grave ce qu'ils ne veulent pas ay góor jigéen lañu mais sous la table bugguñu ku leen bugguñu ku leen feeñal soo leen feeñalee léegi nga gis ñu commencé feebar léegi ñu commencé feebar commencé jëfru commencé wëlbatiku commencé daw. il faut doomu aadama yi arrêté il faut que vous arrêtez arrêté leen liñ leen xamal dafa bari de on a beaucoup de dossiers chez vous xamal dafa bari bàyyi leen doomu jàmbur bi tranquille sinon le Sénégal va va chauffer de. ça xale yi restez garde toog leen en garde restez prêts restez déterminés man duma ma waxati li ngeen di def du leen ko waxati boo gisee ma wax ko c'est parce que dama doon woon Macky Sall ne du dara il n'est personne kenn ragalul Macky Sall ñun ragalul Macky Sall de Macky du dara il n'est rien du tout on n'a pas peur de lui ñun ragalul Macky xam nga lu policiers yeeg gendarmes yeeg militaires yeeg gouvernement sénégalais yi xamul mooy doomu aadama tey ragalatul ku ko ñun ragalatuñu ay noot ragalatuñu ay dóor ko dóor ba mu sonn lu muy def day dërkis danoo dërkis ñun dañoo dërkis suñu yax yi dafa dëgër suñu yaram yi dëgër na léegi sonnatuñu maltraité ngeen doomu sénégalais yi ba ñu dërkis El Hadj Diouf dans un monde normal dañ koy jàpp dugal ko ci ay psycho jox ko ay psychologue ñu travailler ci bopp bi kuy dem toog ci journal toog nii ci fauteuil bi journaliste bu wax noppil nga bàyyi ma kele ah non non non ah, laisse-moi parler tout mais c'est extraordinaire ça c'est grave vous vous vous vous rendez compte El Hadj Diouf bu toogee ci télé mais débat bi moom moo koy cadré lépp lu fa ne moo koy wax ba mu jeex pour moom nag intelligence la pour moom loolu intelligence la déedéet El xam nga lan la manque d'éthique da nga amul éthique yow li nga comprendre mooy la les sénégalais te connaît pour yow nag yaa tegal gaynde gi xam nga boo demee euh, comme niñ koy waxee euh, boo demee tey deux stv ils ont battu tous les records du Sénégal avec qui avec Paulish et Paulish ak kii euh, Ouzin Keita Paulish mbay ak Ouzin Keïta ils ont bati tous les records de tous les télés sauf Ousmane Sonko sauf Ousmane Sonko ah Ousmane Sonko rek laa gis homme politique buy wax waxu nit Sénégal vingt mille personnes seetaan ko mais ginnaaw Ousmane Sonko Assane Diouf moo fi battroon tous les records des lives n'est-ce pas ginnaaw Assane Diouf kan Pawlish ak Ouzin Keïta ñëw nañu romb nañu yooyu yëpp nest pas donc El Hadj tuddee leen ko élage Hadj Keita boog wala ngeen tuddee ko El Hadj Lich wala dara parce que moom il na comprend pas que les Sénégalais rigolent de lui waxam yi yëpp dañ koy jël TikTok ko suba ba ngoon jot te il ne se rend compte moom dof bi dafa defe ne moo téegal gaynde gi mi ngi mel ni waa ji woon xale bu jigéen bu rafet bi daanu ñu ne ko lu xew mu ne ah xale bi loxo bi neex na te fa moom xamul ne am na leneen lu dul loxo mooy El Hadj Diouf El Diouf mooy xale yu jigéen yi ko xam nee nañu buñ ko jàppee moom soxlawul nga koy tëdd dañ koy jël di ko jurgat rek muy muy muy daanu di doxat lu ne mu dugg ci xamul la moom xamul moom li ko intéressé barewul ci jigéen de jël ko rek nga jël jurgat bi di ko dugal ci nopp bi di ko surux surux surux on le connaît on vous connaît dañ leen xam ba mana la buñ leen boo ma joxoon livre mën naa koo bind ci El Hadj Ousseynou Diouf dama ko xam sama diggante ak yàlla ak sama tray bàmmeel dama xam El Hadj Ousseynou Diouf comme ni ma xamee sama loxo yi xam naa ko de El Hadj Ousseynou Diouf je le connais nee naa la mbindaanu këram ay mbindaanu këram laa leen wax ay mbindaan ay doomu aadama yoo xam ne ndeysaan ay nit lañu yu ñëw di ko liggéeyal di ko toppatoo di ko dimbali gis nga ñooñu confortable ñu romb ci këram bu seen patron nekkul foofu dañuy nekk ci beneen côté kër gi di liggéey da koy dégg mu doog ay ayda ayda ñëw basal ma sama diggu ginnaaw gi Aïda di ko bës mu ne ko puusal bunt bi gis nga ndeysaan mbindaan yi nee nañu buñ koy bës nii la ñuy def dañuy def nii di xool fële ndeysaan ndax patron baa ngi leen di xool parce que une minute am na rek El Hadj mi ngi leen di lambaatu di leen ba pare di lox ci kaw la di lox ci kaw mais c'est extraordinaire il a une maladie de femme kooku war ta xas doomu aadama mais c'est grave c'est ça la réalité il faut ngeen xam ne journalistes yi nekk ci plateau yi c'est la manipulation des masses dañu nekk di manipuler population bi Sonko moo def waaw jigéen bi nangam nangam ñoom nañu mën a xam loolu dañu nekkoon ci biir néeg bi ils étaient là mais c'est extraordinaire ils étaient là non donc ils n'ont qu'à nous montrer les photos comme ils étaient là waaw dégg naa xale bu jigéen bi nee na xale bu jigéen bi nee na xale bu jigéen bi ay waajuram ci boppam nee nañu moo dàq duul Ismaïla Yacine nee nañu xale yu te yooyu la bi mu nekkee xale mais vraiment xam nga naqaru àdduna nit ku simple moom simplicité yenn saay baaxul ci àddina àdduna yenn saay il faut nga yéeg tuuti te loolu la ñuy ñaan président Sonko il faut nga bàyyi simplicité bi nag tu es très gentil arrête d'être gentil bàyyil baax baax day sonal doomu aadama yenn saay yenn saay tuuti soxor baax na parce que ñi ko sekkal ay mbaam lañu tu es contre des requins et des crocodiles et des doomu xaraam yooyu à tout prix ils veulent t'éliminer ils veulent même te donc il faut yow yaay xam loolu il faut yow yaa koy xamal sa bopp xoolal pays boo xam ne démb ba léegi barki démb ba léegi élage narankuur a ngi ñuy sonal ci télé yi baratatatatatatat lay def mel ni daa mel ni biir buy daw mais c'est grave ça c'est grave xanaa yéen kenn ci yéen ci senegal jëlul temps pour xam kuy El Hadj Diouf mais c'est grave mais c'est grave xanaa kenn ci yéen kenn ci yéen rek El Hadj Diouf gis nga yi boobu muy jéem a avocat nii daf koy jéem a tëdde parce que boobu il est malade je veux dire qu'il est malade mental ji wallaay billaay dafa feebar laaj leen client El Hadj Diouf yu jigéen yi laaj leen jigéen yi El Hadj représenté laaj leen leen. El Hadj Diouf il est kooku du nit ku normal c'est un malade mental wallahi al azim dafa am problème psychologue dafa am problème mu jigéen maanaam moom bu gisee jigéen ndox mi nekk ci taatam mi mën naa génn te sequl ak jigéen mi El Hadj Diouf il est il faut doomu aadama yi xam loolu doomu aadama yi gis nga Sonko li nekk digganteem ak jigéen boobu moom moo leen ko mën a wax ak lu mu mën a doon moom rek a leen ko mën a wax man du ma waxee ni ñeneen ñi du ma ne waaw bu ko defee nii bu ko defuloon nii bu ko dugalee fii bu ko génnee fii je m'en fous àdduna bi ku def ku ci ku deful bu tuuti bi def ku deful bu réy bi def nga bu tuuti ku nekkul eh, waxu sénégalais nee nañu ku nekkul ci bii yaa ngi ci bii donc hey who cares lenn moo ma intéressé man. mooy li nga xam ne Sénégal yëpp a ko bokk Sénégal yëpp bokkuñu tube yu Sonko senegal yëpp bokkuñu Sonko Sonko moom moom boppam ak li ci moom ak ay soxnaam moom moo leen moom that's it it belongs to him calm down léegi nag bugguñu nit jël ne wala Sonko def na donc Macky Sall tamit bu ko neexee mu sàcc dix mille milliards déedéet loolu du benn Sonko li nekk ci tubéyam ak moom moom moo ko moom makki sàll dix mille milliards yi senegal yëpp ñoo ko moom donc voyez la différence Sonko li nekk ci biiram moom moom moo ko moom li ko islaam wala yàlla wala keneen di attee loolu digganteem la ak boroomam ak la nga xam ne moom moo ko def neexul baaxul yàlla nangu ko loolu seen problème la bu fekkee nekk na mais loolu moom moo ko mën a wax pour ñun ñu mën koo gëm